day bëgg wax nag boo dee julli julli juróom noo leen di jullee ca rukkoo yaag sujjóot yaag taxawaay yaag yépp rek moom noonu la koy tegalee te tàmbali julli suba nag wéy maanaam boo bëggee dugg ci julli gi ngay wax allahu akbar te ànd yéene ji baa boo wax bokkut ak boobu nag doy boo ne woon fa akbarullahu sax du ko tax doy boo ne woon allahu azam azam wecc na akbar ci xëy na maxnaa waaye du doy faaw rek allahu akbar moom nga mën a wax su ko defee dafa war a lëkkaloo yéene ji maanaam boo wax sam xel ne yéene naa tisbaar rek mbaa yéene naa julli gi teew daal di wax allahu akbar si saa sa mu sës ci rëkk rëkk rëkk yow bëgg ñu sësaloo waaye jarul ngay bëgg bu sësaloo nag ba nga jax-jaxi nag sam xel naa yéene wu ma am yéene wu ma taamuñ ba tey nga wax ko ci sa làmmiñ ne yéene naa julli sàngam lu may boo ko deful sam xel di jax-jaxi te ci yoonu Maalik moom fekkee nar ngaa jax-jaxi say wax ko ne yéene naa nangam daal di ne allahu akbar fa saa sa dañoo sopp booy kàbbar kàbbar almal bi yëkkati say loxo ba mu tolloog say mbagg mbaa ba mu nekk diggante say mbagg ak say nopp yëkkati boobu li ñu sopp la bokk na ci ngënee li julli léegi nag suba la bëgg a tàmbalee nag nga daal jàng ndegam kàbbar nga armal bi jàng moo ci des fay ndegam suba la tàmbalee nee na bu dee suba da ngay jàng te biral ko ndax suba sunna la nga biral ko faatiha ngay njëkk a jàng boo noppee teg ceew saar waaye nag bul jàngaale bismillahi rahmaani rahim bul ko jàngaale ci faatiha ji bul ko jàngaale ci saar wa ndax yoon wi ñu topp muy yoonu maal dañuy sib ku jàng bismillahi rahmaani rahim julli farata te yoon woowu la sëñ bi toppaloo boo déggee ne ku koy jàng nag bu mu tax nga diingat ko mbaa dara ngir yee wuute rek waaye yow nga topp rek saw yoon soo waxee wala daalliin ngay wax amiin bu dee yaa julli yow dong moom sopp nañ nga wax ko waaye nag ba tey ci suuf nga koy wax doo ko yëkkati doo ko yëkkati boo dee jiite ba agsi ci wala daalliin da ngay bàyyi ñi nga àndal wax amiin te wax ko ci suuf ñoom itam waaye yow njëgam yaay jiite te dangay biral bul wax amiin boo dee yow nag moom nga xam ne yow rek yaay dégg li ngay wax li ci ëpp kon baasee ci wala daalliin da nga wax amiin ndax da nga dégg ilimaan yu am xam-xam bu baax a baax su waxee wala daalliin bu wax amiin ci kaw boole ci da nga dégg itam yi ànd ak moom am ràññi ko bu baax a baax tey wax amiin ba jàkk ji yëngutu jàkk ji yëngutu waaye loolu seen yoon la noonu lañ gisee te loolu wér li tam ba tey ci hadis kon da ngay jàpp li ngay jàpp te bañ a di nag bañ a gaaw a defe na rek li nga jàng fi rek moo war a am dudli moom du aw yoon yoon maali daal moom mooy ku mën di wax amin da ko yàlla ci suuf te ilimaan bu dee biral du ko wax day bàyyi maamam yi wax ko bu dee yàlla dana ko wax waaye ci suuf la koy wax bu dee jul yow dong nag moom da nga ko wax ci yaar yëpp ci biral ak yàlla waaye ba tey ci suuf nga koy wax loolu mooy yoonu maalik dañoo wutee ci ilimaan bu dee biral dana wax amin am du ko wax li wóor ci yoon maalik mooy du ko wax mbir mbir mooy jaxasoog lëndëm géeg leer gi ci jamonoy fajar googu le daa wax ne comme suba la dañoo sopp nga jàng ci mu fasal yi guddi yi loolu nag moo tàmbalee ci xujuraat ba ci xabasa dalee xujuraat ba xabasa nga jàng ci benn saar ci yooyu bu dee julli suba taamu nañ ko bu gënee gudd loolu itam baax na mu ngi takku rek ci na lëndëm nga ak leer ga jaxasoo nga xam ne daal ba léegi bët setagul daal na waxtu yaatoo rek dañ bëgg nga jàng na jàng mu gudd ci kaw nag nga julli yow dong baa nga ànd ak ñoo xam ñoom ñëpp dañoo bëgg julli bu yàgg waaye bu fekkee ni mbooloo ñu faral di mel am na ci ñu tawat am na ci ñu bari soxla moom da ngay jàng ci saari gàtt yi maanaam saar wa da nga koy biral da nga biral fatiha ja nee na boo jàngee fatiha ak saar ba mu àgg rukoo moo ci sës nga daal di wax allahu akbar booy tàmbali sëgg tàmbali tàmbali wax allahu akbar yow bëgg boole wax ci jëw ji boo sëggee rek ba say téngo jege say bëti woom rukoo am na waaye dañoo sopp nag nga jàpp ci say woom bu dëgëra dëgër loxo bu dëgër dëgër ci bëti woom yi loolu mooy tax rukkoo bi gën a mat su ko defee itam nga fexe ba sa gannaaw sa bopp yëpp maase gannaaw gi doo ko dooxal doo ko xogil bopp bi doo ko téenal doo ko sëgal xam ne yëpp day maase bi sañoon tam say përëg fal say poqtaan tuuti bañ cee sës ak rek loolu lépp na nga fas yéene toroxal sa borom màggal sa borom rek ngay jubli ci loolu lépp moo xam ne ngay rukkoo moo xam ne ngay sujjóot day xaw a nuru kuy jëf ci si dox waaye da nga ci yéene màggal ak toroxlul sa borom maanaam nag boo toolee ci rukkoo da nga sàbbaal waaye doo ñaan xam nga ñaan mooy yàlla yàlla nag mu may nangam loolu kenn du ko wax ci booy rukkoo rukkoo moom da ngay sàbbaal rek subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi baa nga wax leneen waaye ci xeet sàbbaal yi waaye bul ñaan foofu yàlla may ma nangam subhaana rabbiya tudd naa sellug sama borom al azimi kay aji màgg wa bihamdihi te maa ngi nekk ci jantam maa mën ngaa wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi noonu laa ko waxee woon léegi dafa wax ne duy wax ne ñaata yoon ngay wax subhaan rabbil azim wa bihamdi jàpp leen daal boo ko waxee ñetti yoon yu teey moom digg doomu na baax na waaye bu ko yéesee du ko tee baax bu ko ëppee ëppee ñett du ko tee baax boo waxutoon dara dara jàpp ci teewoo bi te mu doy dañoo sopp rek wax ngay wax loolu ci bi nga jàppati yooyu waaye gëneel rek nga bàyyi bu fekkee waxoo fa dara dara dara di ne itam boo jàpp ci teewoo faaw nga toog fa nangam minute te dañuy bàyyi ba nga ne tekk mën da ñàkk dañoo waxoon ne bokk na ci faratay bokk na ci faratay julli foo toll ne tekk ba say cër daal kon boo jàppee say woom lu néew néew da nga ne tekk bu cër yi daal lu yées loola moom du doy bu loolu amee loo ci doliwaat muy sunna ndax bi nga ne tekk bu cër yi daal loo ci doliwaat sunna la maanaam boo siitee jokkoo bi ngay wax samiha dégg na allahu yàlla li ma ñeel ka nga xam ne xamidahoo sant na ko li muy tekki mooy yàlla nangu na ñaanu ka ko sant am na xisa buñ ci natt li xëy na duñ ko mën a guddal fi waaye daal wax naam ajaaba duha aman xamidahoo loolu lay tekki bu fekkee rek yaa julli yaa lépp ngay wax boo sikkee ci rukkoo bi ngay wax samiha allahu liman hamidah ba noppi nag waxaat allahumma rabbana wa lakal hamdu xam ne kon boo dee julli yow dong ngay boole sunna seen gëneel li da ngay siggee ci rukkoo bi daal di wax samiha allahu liman hamidah ba noppi tam du tee nga waxaale allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma yow buur bi rabbana yow sunu borom wala ka ñaanal alhamdu cant ga maanaam bu fekkee am na kuy jiite am ko ànd ak moom dañ koy séddoo kay jiite mooy taxaw wax samihallahu liman hamidah ka ñuy jiite muy maamoom maanaam kay toppee muy maamoom mooy taxaw wax allahumma rabbana wa lakal hamdu kenn ku ne féetewoo leen ci ko bi ngay dellu ba taxaw jonn ba ne tekk boo jàppee ci wooyu ba siggi day aajoo nga siggi ba àgg ba taxaw jonn mel ne ba nga sëggagutoon siggi googu ba taxaw jonn noonu ba cëri jub farata la nga bàyyi ba ne tekk door a jàll sujjóot it ba tey farata la xam ne kon ñaar ngi foofu ngay taxaw jonn ba noppi ne tekk doora jàll waaw danga xale koo nga ca kaw di sujjóot si da ngay jékki-jékki sujjóot rek waaye bëgguñu nga toog ba noppi doora sujjóot ndax foofu amutub jataay ngay jékki-jékki daal di sëgg rek sujjóot daa wax ne boo dee sujjóot ngay teg da ngay teg sa jëmm ne dégg mu bakkan bi bu mu def yëngatoo ko dalaat léegi da ngay da ngay teg rek jëbi ak bakkan mu ne dégg rek benn yoon bi jar nga di ko fës na ba di ca gaañ waaye dañoo bëgg mu ne dégg rek nga xam ne ni bakkan bi teyoon jëbi moom nekkul yëngatoo ko daal nekkul di doo ko dalaat dañoo sopp itam say téem nga nga andi ko ba mu jege ak say nopp waaw dañoo fu nga dëpp sëb jë nga indi say loxo say téem su koy rëppeel mu ñëw ba jege nopp yi loolu tàmm nañ ko maanaam mën nga aji rëppeel loxo yi mu tolloog nopp yi mbaa mu dem ba jege ko noonu lépp rek baax na maanaam boo sëggee di sujjóot dañoo bëgg sab xasab doo ko tëral ci suuf ak jur ni ñu def ak jur bu gooree ngay gis xasab bi ci boppam àgg ci suuf mel na nii moo koy bëgg a wane doo ko def yéen noonu nga sëggee di sujjóot dañoo bëgg say përëg xaw a sori say poqtaan waaye taamuñu say përëg say poqtaan bu wér-wér ndax da koy xaw a sori tuuti rek mu digg doomu yéen bi nga sëggee noonu sujjóot dañoo tàpp noonu nga sëggee di sujjóot fi mu toll nii noonu nga sëggee boo ko desee say tànk ci gannaaw itam mën naa tëdd ci suuf waaye say tànk yëkkatiku bu ko defee baaraam yi nga samp leen biir baaraam yi day jëm suuf loolu dañ taamu mel ne nii ma koy bëgg a wanee nee na bu sëggee day sujjóot nag mën ngaa boole sàbbaal ak ñaan li ma la waxagul nag sàbbaal rek la dana ëpp wax nag subhaana rabbiyal a'la dolli ca allahumma xfir lii boo ne subhaana rabbil a'la loolu ak sàbbaal la sama borom tudd naa sa seel yow mu màgg mi boo ca boolee allahumma xfir lii yàlla yàlla ma jéggal nag mu daal nekkum ñaan nga wax ko gën gaa néew ñetti yoon te mu tey waaye nag boo waxul dara itam mu baax boo ko waxee lu yées ñett mbaa lu ko ëpp it mu baax ba tey ñaan gi mu la wax tàmbalee subhaanaka rabbi zalamtu nafsi wa hamiltu su'an faxfir lii ba tey baax na waaye leneen loo wax itam mu baax ci xeeti sàbbaale xam nga dañoo waxoon ne boo dee rukoom na ngay sàbbaal kese waaye doo wax yàlla may ma nangam bi ngay sujjóot nag moom mën ngaa ñaan bu baax a baax ndax dañoo wax ne sax boo sujjóot ngay gën a jege sa borom foofu nag kon loo bëgg a ñaan rek mën nga koo ñaan boo ci boolee nag ci subhaan rabbil a'la allahumma axfir li joojee nag kon ak ñaan lay doon daa wax ne boobu nga sëggee di sujjóot ñëw bu faaw nga am fa nangami minute mbaa dara waaye nag lu néew néew nga ne fa teg bëccër yi dal ndax dañoo waxoon ne foo toll ni fa teg ba cër yi dal moom farata la kon nag ne fa teg ba cër yi dal mënta ñàkk gannaaw bu cër yi dalee nag loo ci yokk mu doon sunna li muy wax ni mooy ba nga sëggee sujjóot nag ba ne tekk ba say cër dal da ngay def yëkkat te boo yëkkateeku nga boolee wax allahu akbar ndax dañuy tàmm looy jëf rek boole jëf gi wax gi allahu akbar boo toogee diggante ñaari sujjóot yi am na nu ñu taamu nga tooge na mooy dañoo bëgg nga lem sa tànku càmmooñ te bañ caa toog sa tànkum ndeyjoor nag moom nga bàyyi ko mu yëkkatiku bañ tëdd ci suuf ba àgg te itam ay baaraamam jëm suuf su ko defee nag nga ne yëkkat say loxo na nga ko tege woon ca ba sujjóot mu dend ak say nopp nga ne yëkkat say loxo nag teg ko ci sa ñaari bëti woom mooy loxum ndeyjoor tegu ci bëti woomu tànkum ndeyjoor loxo càmmoñ moom it nga ne ko tegg ci bëtu woomu tànkum càmmoñ foofu nag moom doo fi yëngal benn baaraam boo toogee diggante ñaari sujjóot doo fi yëngal benn baaraam ni mu wax ni moom lañ bëgg nga toogee ko nag boo toogee diggante ñaari sujjóot moom lay bëgg wane ni waaye jëfewut te itam ki déglu mu xam ne melaw ñu wax yëpp lu ñu sopp rek la waaye boo ko bàyyi itam dafay julli gi baax waaye ni mu ko waxee nag moom lañ ci gën a tàmmu xam nga wax na la ni ngay sujjóoti benn sujjóot bu ko defee na nga dem sujjóot na sujjóotu ñaareel ba na nga sujjóoti woon bu njëkk ba daa wax ne bi nga amee benn rakka te mooy bi nga sujjóotee sujjóotu ñaareel nga def yëkkat rek daal jëm ci kaw xam nga léegi jóg dem ci rakkum ñaareel rek moo des nga def yëkkat daal jëm ci kaw rek waaye bu toog ba àggal nag door a jóg xam nga foo ëru jotaay boo amee benn rakk doom nga def yëkkat rek daal wuti rakkum ñaareel bi waaye foofu na boo fi toog ba noppi door a jóg ndax kon day mel ne da nga faa def jotaay boo xam ne dëkku fa ñoo bëgg itam boo tàmbalee jóg rek tàmbalee waxaale allahu akbar ndax ñoo bëgg rek booy julli moom looy def rek boole jëf jéeg wax gi allahu akbar ba mu des nag boo amee ñaari rakk jëm ci ñetteel moom daañu ko wax moom ñoo bëgg rek nga bàyyi ba jóg ba taxaw jonn jonn door a wax allahu akbar léegi taxaw nga ci rakk ñaareelu suba dañoo bëgg nag nga jàng ba tey ci saa yu guddi yi na nga defoon ci rakk bu njëkk ba waaye nag bii mën naa gën a gàttalew saar ndax dañoo bëgg faawu foo ko fekk rakk ñaareel gën a gàttalew taxawaay rakk bu njëkk ba waaye tey moom itam rek nga jàng ko ci saar yu guddi yi ndegam yow rek la mbaa nga ànd ñu sawar ci julli bu yàgg daa wax ne rakkam ñaareel bi moom ci suba da nga defoon ci rakk bu njëkk ñoo bokk waaye nag am na ñu wutee mooy am na xulóot te rakk bu njëkk ba amu ko woon daa daa wax ne la neexee nga rokkoo bu siggi door a xulóot nga xam ne kon boo xulóotee baagal da ngay jàll sujjóot waaye loolu bariwuñ koo def li ëpp def kay mooy li mu jox mooy boo jàngee saaro ba mu jeex wala ngaa rukkoo waaw kay foofu nga ko noote boo ko nootee bàggal nag door a sëgg rukkoo nag loolu daal lañ gën a miin teewul nag loo ñu def rek mu baax mu wax nag ñaanu xunóot wal xunóotu xunóot nag buñ taamu ci yoonu Malik mooy nga ne allahumma yow buur bi innaa naka nun nastaayinuka dana nu sàkku sa ndimbal wa nastaxfiruka te nuy sàkku sa njéggal wa nu minuta nuy gëm bi ka ci yow wa natawakkalu te ni wakkirlu alayka ci yow wa nax naaw te ni toroxlu la ka jëm si ci yow wa nax laaw te ni suñu ko ci jëpp diina jëful sa joj wa natruku te ni bàyyi man képp koo xam ne yàgg furuka na la weddi su boroom noo ngi sàkku sa ndimbal di sàkku sa njëgal di la gëm di wakkirlu ci yow di toroxlu jëm si ci yow di set wecc ci jëpp diina jëful sa joj tey bàyyi képp ku la ñemee weddi allahumma yow buur bi iyaaka yow dong naa budu la ñuy jaamu wala ka ngir yow rek nu salli la ñuy julli wa nafsi la ñuy sujjóot wa ilayka jëm ci yow rek nafha la ñuy dox wa nahfiru ta ñuy gaaw narjoo dana nu yaakaar rahmataka sa yërmande wa naxaafu ta ñuy ragal xadaabaka sa mbugal al juddaka aji tar inna xadaabaka naka sa mbugal muy xiqun aji yéeg la maanaam aji joti la bil kaafirina ci way weddi ñu yàlla suñu boroom yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy julli la ko sujootal yow rek la ñuy gaaw jëm ci sa ndigal di yaakaar sa yërmande di ragal sa mbugal gu metti gi sa mbugal jëmale ko ci yéefar ya te musal nu ca nun ñi la gëm xam nga léegi taxaw nga ba xunóot ba àggal li des nag mooy jàll sujoot muy nag boo jàllee di sujoot ak na ngay toog yëpp moom dama ko waxee woon rek rakk bu jëkk ba ñoo ko bokkule daa wax ne am na melo woo xam ne weesoon nga ko léegi ci bi nga toogee diggante ñaari sujjóot ba tey boo toogee gannaaw ñaari sujjóot ni te mooy taayee ji nga xam ne moo ngay bëgg a def ndax suba ñaar rakk la te li ma wax léegi mooy nga noppi ci rakkum ñaareel gannaaw boo sujjóot ñaar sujjóotam kon rakkum ñaareel boobu kon toog taay rek des daa bëgg nag nga samp sa tànku ndeyjoor yëkkati ko bañ a tëdd bopp càmmoñ bi nga lem ko te bañ caa toog xam ne sa njekki kaa day àgg ci suuf moo tax mën naa ba toog ci sa tànku càmmoñ wane woon naa ko léegi xam nga daa waxoon ne tànku ndeyjoor bi da nga koy yëkkati baaraam yi samp waaye mu ne bu la neexee nag nga xaw koo dëngal tuuti rek nga xam ne wetu baaraamu day wi mooy jëm suuf waaye du samp dëgg-dëgg ah du yëkkati ko ba noppi baaraam yi samp dëgg-dëgg mel ne nii ma koy bëgg a wanee ndegam suba nag moom ñaar rakk rek la kon na ngay taay kon daal di sëlmal far la andil nag taay watta chexub taay nag boo ko bëggee def ni nga koy defee ngay wax ak taxiyaatu mboolem baadi yi tegtale nguur lillahi aji nag la ñeel yàlla azzakiyaatu mboolem jëf yu sell yi lillahi aji nag la ñeel yàlla ak tayibaatu mboolem baat yu tey yi assalawaatu ak mboolem julli yi lillahi aji nag la ñeel yàlla da nga ne baat yi nga xam ne mooy tegtale nguur ak màgg yàllaa ko moom baat yi nga xam ne ñooy tegtale jëf yu sell yi mbaa baat yu teey yi yépp yàllaa ko yeeyoo ba tey julleeg ñaan yàlla rek yeeyoo ñu jullil ko yàlla rek yeeyoo ñu ñaan ko assalaamu jàmm yàlla alayka yàlla nekk ci yow ayyuhan nabiyyu yow yonante bi wa rahmatullah ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ak ci barkeem assalaamu jàmm yàlla xalay naa yàlla nekk ci nun wa ala ibadillahi ak ci jàmm yàlla ya asaalihina ñi doy baax ashhadu maa ngi seere ne annaka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jan aji bokkaal la hoo ñeel ko wa ashhadu te maa ngi seere ne anna muhammad naka muhammad abduhu jaamam ba wa rasuluhu te ab yonanteem loolu mu def assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu am na ñuy jàng assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi am na ñu ci dolli taxaala ba tey waaye lépp rek benn la su agsee ci xabduhu wa rasuluhu nag foofu la taaya ji yem taaya nag moom daa bari nett li waaye bi mu la jox nii moom mooy ñëw ci yoonu maali te dañ koo tànn ci Omar ibn Xattaab moo toogoon ca kaw minbar ba jàng ko ñuy dégg ñu mokkale ko ca moom nag boobu la maali moom taamu dañoo wax ne li nga njëkk a wax ne attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillah yonante bi moo ko nuyoo suñ borom suñ borom fayee ko assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi seen bopp daal di wax nit assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin li ci topp nag moom mooy yeesal pas-pas l'islam ak seede si muy ashhadu an la ilaha illallah ba mu daanu xam nga dégam suba ñaar ràkk dong la boo taaya ba noppi sëlmal dong moo ci war a topp xam nga nag lii mooy taayam di mujj kon amul beneen taaya boo ci tegaat du tee nag nee na bu la neexee nga yem rek xabduhu wa rasuluhu bañ caa teg dara dara lu muy daal sëlmal bi sax waaye nag la gën mooy taay ja nga mën a sëlmale moom nga julli ci yorante bi wëlbati ku ñaan ba noppi bala ngaa sëlmal ñaan nga boo ko mënee ci arab duñu taamu nga wax ko ci lu may ci arab waaye bu fekkee li nga bëgg a ñaan yàlla mënu ko wax ci arab mën nga ko wax ci làmmiñ wala soob ci làmmiñ wa nga nàmp xam na la mu ne bu la neexee nag boo agsee ci xabduhu wa rasuluhu nga dolli ci lii mu la bëgg a wax lii nag moom mën a xaw a gudd ñu ngi tàmbalee ci wa ashhad danaa seere ne annal lasi naka la nga xam ne jaa adikkee ne bii ci moom muhammadul muhammad xaqun dëgg la wa annal jannat ak naka àjjana xaqun dëgg la wa annal naara ak naka sawara xaqun dëgg la wa anna saaxat ak naka bi feeñ aatiyat aji dikk la laa rey ba amul benn sikki sàkk fiihaa ca moom wa anna laa ak naka yàlla yebba xam dana dekkal man képp koo xam ne ci sa xubóori nekk na ci bàmmeel ya waaye nag ak lekk ak ñu lekkul ci bàmmeel itam dañ ko waxee noonu rek ne man ci sa xubóori waaye ku aw rab lekk mbaa mu lab ci géej mbaa am ndox meneen ndox itam du tee ñu dekkal ko maanaam nga wax ne maa ngi seere ne li Muhammad andi lépp dëgg la àjjana lu am la sawara lu am la bis penc luy ñëw la amul benn werante te it képp ku deexoon yàlla dana ko dekkal allahumma yow buur bi salli yàlla na nga doo tedd nga xalaa muhammadin ci muhammad wa xalaa ali muhammadin ak ñooñ muhammad warxam yàlla na nga yërëm muhammadan muhammad wa ala muhammadin ak ñooñ muhammad wa barik yàlla na nga dolli barke xalaa muhammadin ci muhammad wa xalaa ali muhammad ak ñooñ muhammad kama sallayta ni nga terale woon wa rahimta ak ni nga yërëme woon wa barakta ak ni nga barkeele woon xalaa ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñoom ibrahim fil aalamiina ci mbindeef yi innaka naka yow xamidun ku ñu sant nga majidun aji tedd nga loolu la ñu tuddee asalaatu al ibrahimiyatu moom itam daa bari ay nett lool ci addis waaye bii la ci sëñ bi moom tànn ba andi la ko fii am na ñoo xam ne nag ndegam li mu wax daa bari bi ak see fee xam dafa war a soob dañ ci yokk li tàmbalee ci waa ashhadu anna la sii ji ba ci xamadu majid xam nga su boobaa julli nga ci yonte bi ñu teg ci nag rabbana atina fi dunya xasana ba mu daanu daal di wax asalaamaaleykum xam ne kon boo ko waxee julli nga ci yonante bi ñaan nga itam door a salmal waaye ëgut waaye li ma lay wax daal moom matagut mooy da nga ciy teg mooy yàlla sa malaaka yëpp yàlla na nga leen dooli teraanga rawante na li nga ci gën a jegeñal sa bopp dale ci jibril mikail israfil hafrail yàlla yàlla na dool teraanga itam mboolem ñi nga wax yi ba noppi te digalee leen jottali ak mboolem ñi nga wax yi ba noppi digal leen jottali mooy ña nga solo ak ña nga yónni ak mboolem sax ñi nga xam ñoo lay topp yàlla na leen dool liñ jéggal ak yërmande sunu borom yàlla nag ma jéggal jéggal samay waajur ak mboolem sunuy kilifa muy borom xam-xam yi muy sunuy njiit ak képp ku lu jiitu woon te gëm la rek muy saxaaba yaak ña topp ci seen gannaaw jéggal leen jéggal gu dog wax leen ñaan googu ñaan gu matale la ndax sunu borom maa ngi lay ñaan yépp yi woo xam ne sa jonante mas na la ko ñaan te jëndul ci man maa ngi lay ñaan nga mayam ko te lay ñaan nga musul ma ci yépp ay woo xam ne sa jonante mas naa ñaan nga musul ko ci may itam nga musal ma ca suñ borom yàlla na nga nu baal lan jot a jiital ci ay moy ak lan yeex a def ci ay moy ak lan ca làq ak lan ca feeñal ak la nga xam ne sa yaa ko xam te nun xamun ko mbaa nu fàtte ko tey fàttewoo ko yàlla yàlla nag nu may ci àdduna lépp luy yiw may nu ci àllaaxira lépp luy yiw te fegal nu bëggal lu sawara li ngay daaneele sa ñaan daal mooy yàlla yàlla nag ma musal ci fitnay dund fitnay dund nag mooy di dund ba noppi di soxlawoo lu dul yàlla ba tey musal na ci fitnay dee mooy ñàkk deexaale gëm musal na ci fitnay bàmmeel ni ki laaj metti maag mbugal yi bàmmeel yaa ngi demee noonu musal na ci fitnay kii wax naa day ñëw ci bisub jamono tudd almasiixu dajjaal te bu dikkee woote ne man yàlla laa amee ajjanaam amee sawaraam ku ko gëm mu yóbbu la ci ajjana ja ku ko weddi mu yóbbu la ci sawara wa nga suñu boroom kooku de bu fekkee fekke naa ko yàlla nag ma ci musal ci fitnaam baa mu ci ja musal ma itam yàlla ci mbugalum sawara muy ba mun xasaabi naar yi musal ma itam ci mujj gu ñaaw yépp yàlla musal ma ci su agsee foofu nag nga door ne assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibaadillahi saalihin waaye daa mel ne am na ñoo xam ne ñu wax ne ñu tàmbalee assalaamu alayka ba ci saalihina ji da ko wax rek waaye taxul net li ba dëgër waaw net li boobu daal mu wax dëgg yàlla li ñu gën a jàpp mooy lépp mi ngi yem ci wasoolil masiir ji rek ba defee na nga daal di wax asalaamaaleykum bo boo ne asalaamaaley ba mu des kum kum ji nga xaw a dundee tuuti sa wet ndeyjoor nga xam ne ku la féete woon ci gannaaw di seen sa teg leex dundee boobu tuuti dañ koo sopp bokk na ci nga neel yi nee na benn sëlmal bi dong nag bu dee yow dong yaay julli am laa kenn moom ngay def ba tey bu fekkee yaay jiite itam benn sëlmal boobu rek ngay def bu dee ci yoonu Maalik moom boo dee julli yow dong mbaa ngay jiite doo weesu benn asalaamaaleykum nee na boo doonee maamum nag mooy am na ku la doon jiite te ngeen toogee di julli am na ku la féete ci wetu càmmoñ boole ci kon na nga wax asalaamaaleykum ñetti yoon ndax na ngay wax asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata mel ne bu doon yow dong nga waxaat ndànk nag asalaamaaleykum junj ko jëmale ko ci sa ilimaan bi lay jiite bu fekkee am na ku la féete woon tàmmoñ nag te am na ci lu matub rakk nga wàññeeku ko ci càmmoñ moom it wax ko ndànk asalaamaaleykum bu fekkee kenn féetewee la càmmoñ yaa mujjoon ci rang ba ci wet googu nag sa càmmoñ kenn nekk fa woon ba am na ko fa nekk waaye amul sax jullit lu matu rakk rakk bu mujj ba la ñëw te fekk ko jàpp ci wóom ya kooku dañ koy jàpp ni amul dara ci jullit bi ba tey foofu doo fa delloo dara. nee na boo toogee bay taaya da ngay jël say loxo teg ko ci kaw say lupp su ko defee dana leeral ne loxo càmmoñ bi moom. ay baaraamam doo ci bank benn doo ci yëngal benn waaye nag loxoom ndeyjoor it moom dañoo bëgg nga bank baaraamu sàngaleñ bi ak ba sës ci moom ñu koy wooyee ndombur ak ba ci sësaat ñu koy wooyee baaraamu diggatu nga tàllal nag baaraamu sànnikaay ak baaraamu déy yooyu yaar moom doo leen bank su ko defee nag li njëkk wax mooy baaraamu sànnikaay bi da nga koy tàllal mu ne sant rek mel ne kuy joxoñ loolu nag jenn wax la daa am ñu wax yëngal gi am ñu ne déedéet dañ koy tàllal rek noonu bañ koo yëngal bañ koo def dara li mu njëkk a wax nag mooy tàllal gi bañ ci yëngal mu koy tàllal muy xat rek jëm ci sa kanam moo tax mu teg ci waxtu li fa wuuteef na fii taxrikiha ci yëngalam nga am na ñu ne des na ko yëngal am na ñu ne des ko yëngal ci booy taaya wax ji gën a wër nag mooy des ko yëngal muy bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmoñ di ko saxoo di ko saxoo ba keroog ngay sëlmal jooju wax moo gën a wóor ñu wax ne baaraamu sànnikaay boobu doo ko yëngal da nga koy tàll mu ne sart rek ñoom nee nañu da nga ciy junj ne yàlla rek ay buur mooy benn baaraam boobu da nga ci wane ne yàlla rek ay buur di kenn rek de amul ñaareel ñi nga xam ne nag ñoo yëngal baaraam boobu dañuy wax ne soo ko yëngal da ngay mel ne kuy dóor saytaane aw yet wu am doole di ko ca toroxal am na ñu jàpp loolu ne kon yëngal ga loolu lay tegtale man nag yaakaar naa ne daal yëngal baaraam bi li muy jariñ mooy li xeet baaraam baa ngi yëngatu da nga fàttaliku ne ci julli nga nekk ba doo juum sa xel mbaa sa yitte du jëm ci leneen um daal neen loolu la jàpp ne rek moom la yëngal baaraam mu sànnikaay boobu di jariñ doon naa ko wax léegi moom laa doon wax léegi naa loxo càmmoñ moom da koy teg ci lupp càmmoñam rek waaye ay baaraamam du ca bank benn du ca yëngal benn nee na sopp nañ boo jëlee julli farata ba sëlmal wala ngaa naafila mbaa dara nga def sikkar yi nga xam ne dañ koy toxale ci ku baax ka bokk na ci wax astaxfirullah ñetti yoon daal di wax allahumma anta salaam wa minka salaam am nañu jàng tabaarakata yaa zal jalaali wal ikraam am nañu wax tabaarakata wa taalayta yaa zal jalaali wal ikraam bu ko defee nga daal def nag subhanallahi fanweer yoon yett alhamdulillahi fanweer a ñett allahu akbar fanweer a ñett su ko defee nag muy téeméer banque benn nga mottalee ko laa ilaha illallahu jooju ba ci wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jàng itam ayatul kursi yi benn yoon ndax la hadis lu wax ne ku saxoo jàng ayatul kursi yi ci gannaaw julli farata gu ne dara doxul digganteem ak ajana lu may faatu maanaam sopp nañ boo juree julli suba ba sëlmal nga bañ waxtaan waxtaan adduna bañ a nelaw lu may dangaa gëmmantu lool lool ba boo doon def dara itam doo xam li ngay def kon say boo tëdd noppal waaye bu loolu dañoo sopp nga toog di tudd yàlla di ko jéggalu di ko sàbbaal di ko ñaan ba jant bi fenk ba mu jegee fenk addis ba sax nee na boo jullee suba ci mbooloo daal toog noonee nga toogee di tudd yàlla ba jant bi fenk ba yëkkati ko ñetti meetar nga julli ñaari rakka loolu dana la ci aj bu mat sëkk aj am na sax nett li boo xam ne moom daa wax ne ku def loolu am tuyaabay aj ak xumra yu mat sëkk yu mat sëkk yu mat sëkk nett li boobu dane man salla asubaha fi jamaatin suma qaxada yadkurullaha taala xatta tatlu ashamsu tuma salla rakxatayni kaanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin taammatin taammatin taammatin benn ba moom dafa daaneele wa salla rakxatayni kaana lahu sawaabu hajjatin wa umratin taammatayni taammatayni taammatayni nga xam ne xaalahu talaasan am na sax beneen nettali bu ne boo jullee suba toog fa nga jullee woon waxul lu may lu baax ba julli yoor yoor jot nga daal julli julli yoor yoor ñu jéggal la say bàkkaar doonte sax daa toll ne du si géej loolu nag tax na gaa yu baax yi jiitu woon dañ daan xir ci naa julli suba ñu def noonu rek bañ koo bàyyi boo nekkee nag ci béréb boo xam ne doo mën a séen jant bi ba xam fenk na ba yëkkatiku ñetti meetaram ndéet kon bu dee suñ béréb yi moom da ngay seet waxtu wañ nodde woon salaatu boo ca tegee waxtoog genn wàll rek moom xamal ne kon jant bi fenk na ba yëkkatiku lu mat ñetti meetar kon mën ngaa naafila ñaar rakkay fajar lu mu fonk la rax yu bët la rax yu bët mooy loo xam ne moo gën a màgg naafila yi kese yi gannaaw bu julli sunna yi jàllee ñaar rakkay fajar moo gën a màgg naafila yi kese yi ñu koy wax rax yu bëtu ndax li yonente bi ne woon rak xasaal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën ak nag li ci biiram bu amoon dañ lool lool moom nag moom gannaaw bu fajar fenkee bala ngaa julli suba mooy waxtoom foofu nga koy jullee te it day aajowoo nga yéene ko yéene ju ràññiku bu fajar fenkoon rek nga julli ñaari rakka sa xel demul ci ñaar rakkay fajar laa jublu koy du doy te it day aaju woo mu wóor la ne fajar fenk na booy nattabali ba xam fajar fenk na am fenkut ba tey boo ko defee du doy nga jàpp foofu itam ne su fekkee ne dangaa jullee ñaar rakkay fajar yooyu sa kër door a ñëw ci jàkk ji boo ñëwee jàkk ji doo leen baamuwaat te it doo def nuyoo jàkk da ngay toog rek bu fekkee li xamaguñ nga toog ba ñu jullee nga ànd ja jooju wax moo gën a wóor ba tey bu fekkee dangaa ñëw ci jàkk ji fekk ñu li xaamal ilimaan man nga fay gaaw julli ñaar rakkay fajar yi door koo dabi du tax nga sañ ko ndax lañ ne woon ci addis ba ida uqimati salaatu fala salaata illa al maktubatu maanaam buñu dee li xaamal farata farata ji képp lañ fa sañ a julli loolu moo tax te yooyu jamono doo sañ a génn daa koy def ci bitti ñëwaat déedéet ngay ànd ci julli suba ga rek bu jant bi fenkee ba yëkkati ko ñetti meetar nga mën a fay ñaar rakkay fajar moom nag rakk bu nekk fatiha kese nga ciy jàng teelu ko am na wax itam nag fatiha ak qul yaa kaafiruun ak fatiha ak qul walaahu ahad am na itam ñi ngay jàng ci téere sëñ bi mu ne boo saxalee boo julli ñaar rakkay fajar rakk bu njëkk ci gannaaw fatiha nga jàng ca alam asra rakkam ñaareel nga jàng ci gannaaw fatiha alam tara kon da nga mucc ci pexe say noonu mooy sat moom du la mënal dara baral ñu koy def nag jàng yaari alam yooyu noonu ci ñaar rakkay fajar yooyu le waaye def ko yolu nag moom